ndaje tey bii dañu amoon benn projet diagnostic ci wàllu bay ak sàmm euh, ñu ñëwoon nag tey pour euh, clôturer diagnostic boobu projet boobu bi ñu ko defee ba pare ñu doon def clôture bi tey tey la projet bi jaar defar nañ dossier bi ba am suñ plan d'action fas yéene doxal incha allah doxal boobu nag euh, actuellement bu paree biñ dew yóbboo kayit yi si tubaab yi ñu joxoon projet bi dañoo bañ a toog. ñu ne ñun nañ jéem a def lu ñu tollool suñuy suñuy suñuy moyens liñ man ñu di ko def ci wàllu bay ak sàmm foofu daal lañ toll. CEE bi ñu defee jas na ci ba pare dañoo créé woon ay CEE ñu créé huit CEE CEE yooyu mi ngi dem ci huit villages yi ñu bokkaloon jas na bi ñu doon def bi CEE yi pare ci lañ créé benn société coopérative pour mën a gën a yombal suñu liggéey ci lañ créé société coopérative bi. actuellement ci loolu lañ nekkoon nii daal tey. loolu moo war a moo gën a waral suñu suñu suñu diagnostic bi ndax euh, dañu xa gis ne xale yi ñi ngi génn di dem di clandestin ñi ngi génn ci gox bi di dem ci yeneen gox di daani seen doole dem fu mel ne Ndakaaru fu mel ne ci ville yi suñu amee lu ñu jàpp fii dinañ mën a toog liggéey fii loolu moo gën a waral nag suñu suñu diagnostic bi ñu def ci projet bi bi ñu ko defee ba pare booy jàng formé nañ leen. ba ñi bëggoon a xam wàllu mbay am nañ ay diplôme pour mën a bay ñi bëggoon sàmm it formé nañ leen pour ñu mën a sàmm loolu moo indi indi ndaje mi. xale yi nga xam ne peut-être ñun ñoo waroon na di euh, xar suñ tànku tubéy pour di leen wutal ci lu ñu jàpp bu ñu amee ay partenaires yu jóge fu sori pour jàppale leen ñun lépp lu ñu man dañuy boole lu ñu mën ak lu ñu mënul yëpp pour accompagner xale yooyu donc tey projet yi nga xam ne jël nañ ko muy wàllu mbay ak euh, càmm parce que ku ne mbay ak càmm di nga wax suuf. donc loolu dinañ leen jàppale vraiment ci ay délibération jox leen espace yu ñu bay euh, moyen logistique lépp luñ ci soxla mba euh, ci peut-être euh, subvention yi nga xam ne dinañ ko soxla ci état ñu ñu ñu tàllal loxo ministre de l'agriculture vraiment pour mu jàppale leen ci ay semence engrais ak yëpp yi nga xam ne dinañ koy soxla pour ñu mën a def mbay ak ak càmm. <clears throat> ndax avant muy la lancer Agri Jeunes boobu. Euh, pour dimbale ndaw ñi ñun fekk nañu ci euh, ñu di ci yëngatu bu baax a baax a baax euh, kon loolu wax dëgg yàlla du ñu def tamit lu dul rafetlu ko rek di ñaan tamit mu ñëw pour renforcer li ñu doon def parce que vraiment bu fekkoon ne tey ñun projet bi ñu am mu ngi touché huit village wala dix wala quinze projet projet bu président bi bu ñëwee tamit daf koy gën a renforcer gën ko yaatal parce que li ñu naan xalangu dajul suuf président mën na ñëw vraiment am yéene touché toute la commune. mais nag la mu indi am fu mu yem donc bu waa ñun ak suñuy propre moyen mën nañ fexe euh, def extension yaatal ko vraiment ba ba commune bi yëpp ba commune bi yëpp jot si. plan d'action bi mooy jéem a dimbale baykat yi ci gox bi ba fertiliser suuf yi maa defar suuf si ba mu am doole fexe def jiw wu am qualité ba mën a baykat yi ci année 2021 bi ñu toll nii. bu loolu jàllee bëgg nañ def am ay crédit bancaire am crédit bancaire ba nga xam ne danañ mën a gën a appuyer pour ñu mën a gën a dimbale baykat yi bañ mën a buñ jógee ci mbayum noor nawet bi mën a def ci mbayum noor lu am solo ak ci wàllu élevage. suñ diggante suñ partenaires yi comme ñoom dañoo dimbale woon pour ñu def financement pour def euh, jàngat jafe-jafe yi fi nekk ci wàllu suuf si ci wàllu euh, agriculture wàllu wàllu wàllu élevage. ñoom it ñu ngi leen di xaar ci comme def nañ plan d'action léegi dañ leen di jébbal kayit yi wan leen na ñun lii lañ def lii lañ bëgg a def. projet bi ci juróom-ñetti village lañ commencé mais ñu ngi koy bëgg a lawal pour mu dem ci village commune Touba Mboul bépp nga xam ne vingt vingt deux villages la wala vingt huit villages ak amoo yi amoo yi ñu ngi leen ciy woo te ñu ngi xaar. somme maanaam seen participation bu bu kii ndax wane nañ ko wane nañ ne ñoom engagé wu nañ ndax lu ci bëri xamuñ woon nan la demee départ bi mais bi ñu xamee ñoom engagé wu nañ bu baax a baax pour bokk ci projet bi surtout mag ñi